الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكين أه، yi الله سبحانه وتعالى ممي الله أجنت taala moom mi yelloo waaye di ko jéggal sunuy bàkkaar di yeesal sunu tuub di gëm ne moom mooy aji nangu tuubu jaami xaafiru dambi wa qaabilu tawb yaa noonu yàlla jéggal sunuy bàkkaar te nangul ñu sunuy tuub waaye di seede ne amul kenn wala lenn amul kenn wala lenn ku nu war a jaamu ci dëgg jaamu ga di jural njëriñ ñàkk jaamu ga di ñu jural lor ku dul yàlla di seede ne moo yónni ndawam lu jubla muhammad ibni abdillah tànnee fam nga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi tànnee fam wi nga xamante ne moom la indil moom mi ñëw ngir jàngal ñu naka la ñuy jaamoo yàlla ngir jàngal ñu naka la ñuy wéetale yàlla ba loolu moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund ak saxaaba yi ci risaala gi ci yónni gi ko yàlla yónni nekk ñoom luy tolloog ñaar fukki at ak ñett di jëf ñuy gis muy wax ñuy dégg muy digle ñuy def muy tere ñuy bàyyi moo tax imaam Malik ni mu déggee woon diine imaamu daaril hijra doon na wax ne wama lam yakun yawma idin la laa yakunu l yawma diina mu ne yëg leen ne vingt trois ans yu riche yooyu lu fa nekkul woon diine tey mënta nekk diine ndaxte kat amul lenn lu mën a defar niti tey lu dul li defaroon nitu ñooñee moo tax ndeysaan san bi sallallahu alayhi wa sallam ci ajug tàggatooga mu leen yëg leen ne kat amul dara maa alimtu shay'an yuqarribukum ila aljanna amul dara loo xamante ne dina nekk sabab ngeen jege aljanna dugg ko sori safara ludul ne wax naa leen ko kon dara desul dara desul wallahi mu ne amul dara luy tax ngeen di dugg safara di sori aljanna ludul ne moytutuk laa leen mbir yooyu wallahi sadaqt wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëggu na ak ñun te ak ñun moom dong la yàlla joxoñ nee ñu wa in tutiuhu tahtadu su ngeen koy topp di am njub moom dong la ñu yàlla joxoñ nee ñu ku ko topp rek na yëg ne man la topp wa man yutii rasula faqad ataa allah moom rek la yàlla joxoñ nee ñu képp ku ko topp yàlla bëgg la in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni su ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen ma man muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee yuhibbukumullah yàlla bëgg leen jéggal leen say bàkkaar moom dong moo am garanti yàlla nee ko fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum maa ngi giñ ci sa borom yow muhammad laa yuminuun gaa yi sunu gëmee ma man yàlla ludul ne dañ la bàyyi nga leen di wan ni ñu war a defee kon kooku mooy rasulullah ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla jàppale ñu yokkal ñu sunu cofeel ci moom waaye jàppale ñu ba dootuñu gis ku gën a rëy moom ci ñi ñu war a roy waaye jàppale ñu ba sunnaam gënal ñu lépp lu nu mën a am moo daan wax ne fii am fiikum amrayni bàyyee naa leen ñaari mbir fii ak yéen a ngi ci ngoy du ba faw ñaari mbir yooyu mooy téere yàlla bi ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñu ngi ci waat ci sunu jotaay bi nga xamante ne moo di al aqidatu awwala waay waay jàngal sa pas-pas jiitu ngay jàng leneen yëg ne su baaxee li ci des li lu tuuti rek ah alhamdulilah day sakkan ci kàttanu yàlla subhanahu wa kon mooy pas-pas moo jiitu eh, tuddoon nanu aaya bi nga xam ne moom la imaamu Shafii tuddoon di ko tegtaloo ci ne nit ki war na góorgóorlu xam boromam xam diineem xam yonentam waaye tamit di jëfe loolu di woote jëme ci waaye di muñ ci lor yi ko ciy fekk muy suratul asr imaamu shafii tëjee woon ko ne su yàlla wàccewul woon ci jaami lay wudul saar wi kon doy na ngir loolu gindi leen jàppale leen imaamul buxaari indi buntu tuddee ko baabun al ilmu qabla al qawli wal amal bunta gi di wane xam-xama jiitu bala wax walla ngay jëf ndaxte mbokk yi jëf su ko xam-xam jiituwul kookee day tatone kaddu ci diine su ko xam-xam jiituwul du tege ci yoon kon fokk xam-xam moo war a jiitu mu tegtaloo waxu borom asamaan ak suuf faalam annahu laa ilaha illa allah xamal yow jullit bi lan ngay xam laa ilaha illa allah amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg jaamu ga di ñu jural njëriñ ñàkk jaamu ga di ñu jural lor ku dul yàlla mu ne ginnaaw gi nag wastaghfir li dambika nga jéggalu say bakkaar imaamul buxaari mu ne soo jëlee aaya bi nga settantal ko li nga ciy njëkk gis mooy fa badaa bil ilmi qabla al qawli wal amal yàlla xam la njëkk tudd njëkk muy tudd jëf ndaxte istighfar ah, maanaa lan la jëf la ci la waxee moom borom téere bi di Muhammad bin Abdul Wahab mu ne i'lam xamal rahimaka allahu yàlla na yërmande yàlla nekk ci yàlla nangu ñaan yooyu mu ne annahu liy dëgg kat bay dëgg yajibu ala kulli muslimin war na ci bépp jullit euh, bu góor wala bu jigéen mu ne taallumu haadihi thalath almasail jàng ñetti masala yi wal amali bihinna su ko defee ñu jëfe ko mbokk yi ñetti masala yooyu ñooy yan walla ban moo ci jiitu mu ne bi ci njëkk mooy kenn ku nekk ci ñun war nga xam ne anna allaha xalaqana yàlla moo nu sàkk loolu amuñu ci sikki sàkk wa razaqana moo nuy wërsëgale waaye tamit walam yatrukna hamala yàlla bàyyiwuñu rek ngir neen ni déedéet yàlla rek yàlla loo gis rek dafa am jubluwaay bi tax mu def ko ne woon nañu ci tàmbali ga kat yàlla nee na ci alquran وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون sàkkeewuma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon loolu lu leer la kon nag mu kon yow julit bi yëgal ne indi gi la yàlla indi ci kaw suufam sii di la fi dundal di la wërsëgal wallahi bul yaakaar ne caaxaan moo tax mu indi la fi yàlla ngi ci beneen ci alquranil alif eh, wala feneen fu muy waxee ci eh, aaya bi la teewlootuma ko maanaam fi mu ne a xasiba annaasu an yutraku an yaqulu amana hum laa yuftanun moom laa tudd léegi waaye fee day wax lan dafa ya nit ñi dañoo yaakaar ne dem leen a sàkk ngir lan ngir fo waaw ne fa taala allahu almaliku alxaq yàlla di ëppale na boppam ah di sàkk nit ngir lan ngir fo mooy fi أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون comme ni ko yéefari foogee ne moom fo moo leen indi ci kaw suuf si yàlla mu ne afahasibtum ndax da ngeen foog ne annama xalaqnaakum abatha ñun yàlla foo ak caaxaan moo leen fi indi tonti moo di déedéet mu ne fa taala allah yàlla ëppale na boppam di sàkk dara ngir fo même yi mu sàkk yi bàyyi may xorondom yi weñ yi yooyi yooyu yëpp amu ci benn boo xamante ne caaxaan moo tax mu indi ko ci kaw suuf si waaw yàlla mu ne fa taala allah moom yàlla ëppale na boppam rombale na boppam di sàkk mbir ngir kaf ngir foo ngir caaxaan waaw fene fi nee na ah lahwan su fekkoon ne foo ak caaxaan moo moo yëkkati man borom bi kon la taxasnaahu min ladunna yaakaar naa malaaka yi ñooñu ëpp kàttan fuuf lu ñu mën ñooñu ko dàq waaye ànd ak loolu kon ndekete foo indi wuñu fii lan moo ñu fi indi mooy jaamu yàlla kon mën nañu yëg ne anna allaha naka yàlla moonu bind te moonuy wërsëgal walam yatruk naa xamala bàyyi wuñu rek ngir neen indi wuñu fi ngir neen waaw yaakaar dañoo ñëw rek ngir dund fi jeex jeex na mu jàll déedéet wallahi kon mu yomb mu ne bal li am ba am moo di arsala ilayna rasula yàlla dafa yónni ci ñun ab yonent waaw bi mu yónnee ci ñun ab yonent mu ne ñu yëg ne faman ataahu képp ku wommatul yonent woowee daxalal jannata dugg aljanna yàlla ko yàlla defal waaye nag wa man asaahu képp ku ko mooy li la ciy fekk mooy dugg lan safara yàlla na yàlla musal ci dugg safara ba tey mu ñuy yar ci looy wax ci diine amal dalil ci li ngay wax looy jëf amal dalil ci li ngay jëf moo tax mu ne wa dalilu qawluhu taala lii de lii tegtalam kàddu gi mooy di wane ne yàlla dafa yónni ay yonent ñu war leen a gëm mooy li yàlla wax ca euh, maanaa ci euh, saar wi إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا yàlla من ne nun yàlla رسولا nañu boo xamante ne shaahidan alaykum dafa ñëw di leen seere kama arsalna comme ni ma yónnee woon ci firawna rasulan ab yonent waaye nan la firawna doxaleeg yonent boobu ba tax mu ne fa asa firawnu rasula firawna dafa mooy yonent ba waaye lan moo ko ci fekk fa axadnaahu ñun yàlla ñu mbugal ko ñu ko ciix daa di koy mbugal axdan wa bila mbugal gu lan mbugal gu metti kon loolu mooy bi ci njëkk mooy nanu yëg ne dafa am objectif bi ñu indi ci kaw suufu si yàlla si dafa am jubluwaay bi ñu indi ci kaw suufu si yàlla si moo tax amul wenn xeet wu fi masa romb ludul ne yàlla yónni na ci yow yonent la mu sàkk la mu sàkk ci yonent ba mooy mu xamal ñu tawxid xamal ñu wéetal borom bi subhaanahu wa taala kon mbokk yi daal aqida lii di pas am na solo lool mooy li nga xamante ne su xasee ba dëgër ci jaam bi dara dootu ko mën a yëngal sunu borom yàlla subhaanahu wa taala day joxe misaal ci ki am pas-pas wala sax ñu jël misaal ci saxaaba yi gis nga bi leen yonent bi sallallahu la wa ci laa ilaha illa allah bi ñuy gàddaay lépp lañu bàyyi ginnaaw ba tax sunu borom yàlla mu ne lil fuqaraa al muhajirin alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana ngërmaandeg yàlla ak yàlla kontaan ci ñoom loolu moo leen gënal lu ñu mën a am kon mbokk yi pas-pas su wéree jaam bi dootul xettaliku ci kenn ku dul yàlla pas-pas su wéree jaam bi ci mbir yi nga xamante ne yàlla dong lees ko war a ñaan dootu ko ñaan keneen ku dul yàlla jaam bi du wakiirlu ci keneen ku dul yàlla day xam ne kii def di dindi kenn la mooy yàlla kii joxe di xañe kenn la mooy yàlla ki yore mbiru jaam yi kenn la ki ñu war a ci moom kenn la ki ñu war di ñaan kenn la ki ñu war di xettaliku ci moom kenn la ki ñu war di yaakaar kenn la kooku mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kon waaye ngall ngall nañu jëlaat suñu bopp delloowaat ko borom bi subhaanahu wa taala def ay ndigalam bàyyi ay tereem te xam ne ci lii dong la ñu mën a amee jàmmi tey ak li nga xamante ne moom mooy jàmmi ëllëg kon daal jotaay bii di al aqida awalan nañu jiital pas-pas yi gën ci góorgóorlu jéem koo jàng ku nekk ci ñun na yëg ne farata la ci moom parce que suñu ne talabul ilmi faridatun ala bopp moom mooy tawxid moo wa aadama ma naha anhu shirk li gën a rëy li gën a màgg li tax yàlla li gën a rëy li gën a màgg li yàlla digle mooy wéetal ko loolu moo tax mu wàcce ay téeréem loolu moo tax mu yónni ay yonentam loolu moo tax mu indi ñu fii ci aduna loolu moo tax yawmul qiyaamati ñu nar a taxaw ci kanamu yàlla ñin amoon tawxid am jàmm dem ca kër ga yàlla jagleel ahlu tawxid di aljanna yàlla na ko yàlla defal waaye ñi ñàkkoon tawxid war a jël geneen kër ga ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ci li nga xamante ne moom mooy geneen kër ga di wax ne allahumma inna nasaluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa naudu bika min annaari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal di yeesalaat sunuy ñaan di yeesalaat sunuy uh, uh, kontante ci jamiat ahlul qur'an al karim moom mi nga xamante ne moom moo sabab li mo sabab jëf yu am solo yi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def fi mawasini xasanaatihim waaye tamit di profito di ñaanal sunu waajur di ñaanal sunu sëriñ di ñaanal sunu ustaaz Cheikh Abdul Aziz Mouhamadin al Hadi Touré xafidahu llahu taala wa raa wa zaadahu quwwatan wa aafiya seen mbokk Mouhamad Ibrahim Kan moo ñëwoon doon fàttalanteeg Eh, mbokki jullit yi ci tomb bii nga xamante ne moo di al aqidatu awwala ñu tolloon ci téere bu ama am solo di usulu salaasa di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq liñ fi wax ci kàddu mu bari mu néew eh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla ci yàlla defal tawfiq wa axiru daawana an alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu